kii Daouda Daouda lan la yow tamit. ñan ñooy atel déedéet tamit kii. waaye atel ñoo ngi nii en image ñoom Khalifa Sall Bokum Bougane maître El Hadj Diouf gis nañ ko fa démb Abdoulaye Seydi Sow euh, pas mal de kilifa daal ñoo nga woon foofa ca ca boobule béréb. ñii démb dañ doon waxtaan de waxtaan daal lañ doon def. waxtaan nañu laal nañ ay point yu am solo. mën naa la ci jox ay points de. man kay yow laa bëgg a démb damaa xawoon jàpp nag. waaw waaw démb moom xam naa ne danga xawoon jàpp waaye man xool naa ko tuuti. Ah, ok man kay yow. <laughs> Euh, ci boobule jotaay. Euh, muy mouvement politique bi nga xamante ne ñoom nee nañ euh, dañoo mànkoo démba ba ñuy doog sosu nag ñu ngi leen ñu ngi nekkoon ci yow nombre de 70 waaye ni ki démba yéeg nañu ba 113. comme li ñu am comme info ñoom ñooñu noonu coalition boobu euh, ñu ngi exiger nag bokk na ci euh, seen biir jotaay ñu ngi exiger la tenue immédiate d'une véritable concertation dans l'ordre du jour qui permettra à tous les acteurs euh, ak la ca topp. jërëjëf nga ne ma début bi ñaata lañu woon. 70. dem nañ ba toll ci ñaata. 113 ni ki démb. 113 waaw. xam nga istibet Xbet xam naa ko. mooy pari foot. pari foot. du may dee pari foot nag balaa ñu naan daaw fan la xamee lii. <laughs> dama koy def am nga. Mhm. <laughs> Ah, xam nga lu ma leen di xayma. waaw euh, dama leen di xayma. Mhm. da nga ne dañoo jógee ci euh, soixante dix. soixante dem ba ci. dem ci cent treize. Euh, parfois boo demee Xbet bu ñaari équipe yi di football. Mhm. maanaam Real. waaw buy football ak li nga xam ne moo di Lorient wala mhm. Brest. Mhm. Ah, Real dañ koy may dañ koy may ay cote un. waaw. Real dañ koy may cote un dem jël Brest. Mm. jël wala dem jël Guingamp may ko cot soixante dix. waay bu ñu demee ba Real dugal benn but. Mhm. dañuy yokk cote li nga xam ne moo di cote Brest dañ koy yóbbu ba li nga xam ne moo di cent dix. xam lu mu la bëgg a firndeel foofee. mooy maanaam bu nekkoon. c'est pari foot. Mhm. ñoom duñu ñu favori. lu tax nga wax loolu te xam ne duñu ñu mhm. moo tax naar bi may leen code boo xam ne xam nañ ne àdduna du neex ba ñu gagné. kon kon gëmoo gëmoo coalition bi ne mën nañu am dara ndax ñoo ngi ba cent dix cent treize. léegi nag fi mu toll nii na na gars yi abonné te Thierno euh, boo xoolee liir démb moo liir li nga xamante ne ni euh, bi mooy texte bi. Euh, dinañ si ñëw. Mhm. li nga xam ne. <laughs> Daouda bàyyi reetaan bi <laughs> lan la. <laughs> man li ma si metti dama ne bu ma jëlee explication boobu di leen ne Daouda bàyyi naar bi. Eh. daal acti mooy yàq sama der waaye dafa am loo xam ne rek <laughs> moom xam nga ne xam nga ne xale town bi la te. waaw boo dëkkee si dëkk bi moom. Mhm. dangay ngay da ngay xam lu bëree bëree bari mhm. dañu ne atel. moo di ñoom dañoo engagé benn bataille contre le régime de yi ñoom ñoo ñi li nga xam ne moom la ñu teg euh, ngir xeex ngir am élection yoo xam ne day libre et transparent transparence mais am li am am élection yoo xam ne concertation de ci am mhm. waaye ñoom dañoo jàpp ne ñi nga xam ne dañoo dañoo toog ñi nga xam ne dañoo toog mhm. ñi nga xam ne dañoo toog ci nguur gi mhm. euh, dañoo def la leen neex booleew ñu leen walla tey ñoom ñoo ñi ni nga xam ne noonu la mbiri mer ñu war a toog waxtaan dañoo teg atel avant tout ndax ñi ànd war nañoo ànd. Mhm. bu ma demee ba gis Bougane Gueye Dany mhm. Pape Djibril Fall Thierno Bocoum Khalifa Ababacar Sall. Mhm. Anta Babacar Ngom Abdou Mbow. Abdou Mbow Maître El Hadji Diouf Hadjibou dafa am lenn loo xam ne moo xew xam nga tey Macky Sall neewoon na ubbi tey. jàng tey. ñoom démb bu ma xoolee ci forme dañoo ibbi tey. Mhm. xeex tey. waaw gis nañ ko fa démba euh, ci li ñuy wax nii. Mhm. mooy euh, ci wàllum politique. Mhm. réew dafay am opposition. réew dafay am li nga xam ne moo di booloo. waaye booloowu démb gi ñoom ci liñ ko teg mooy dañoo jàpp ne. élection yi ñu war a jëm dafa war a leer. Mhm. élection yi ñu war a jëm warul am parparloo. waaw élection yi ñu war a jëm warul am ay jafe-jafe. Mhm. Euh, Tata. oui. mbooloo bi nga xam ne moom lañu gis démb ñu toog. Mhm. seen coalition boobu ñu def société civile moo ko doon def. Euh, ñu delluwaat ci histoire politique bi Macky bi Abdoulaye Wade bëggee ànd li nga xam ne moo di ticket présidentiel. Mm-hmm. société civile bi ak li nga xam ne mooy kujje gi dañoo àndoon ne ko bu laal li nga xam ne mooy suñu constitution. Mm-hmm. askan wi war nañu voter. boo xoolee en deux mille dix neuf wala li nga xam ne moo di deux mille vingt quatre. Mm-hmm. même société civile boobu moo jugaat di F24 ñoom ñooñee la ñu doon woote moo di élection yu libre. transparent mais démb li nga gis. ci saa su ne buñ koy xool si wàllum politique mhm. société civile di jouer ab rôle bu am solo mooy ñi nga xam ne tey ñoom ñooy la sookul ñoom ñi nga xam ne tey dañuy taxaw si dëgg bi mais ñoom ñi nga xam ne saa su ne dañuy saytu nga xam ne ñoom heure boo di leen déggee ñu wax mooy ne élection libre na ñëpp bokk bu benn am par parloo mhm. est-ce que démb ñi nga xam ne ñoom ngi gis ñu toog foofee ndax gis nga si li nga xam ne moo di société civile mhm. societé civile amu ca amu ca bu ca société civile amu si loolu li muy wane ndax élection yu ñu jëm mhm. leer na wala leerul mhm. ñoom seeni ñaxtu mooy lan ñi fi nekk dañoo toog di wax li nga xam ne moo di ca élection yi ñu jëm mhm. mais xam nga tey bu ñu gisee Abdou Mbow am fitum toog ak Khalifa Ababacar Sall. Mhm. am fitum toog ak Bougane Gueye Dany di wax ci ay élection yoo xam ne doo fa war a libre ay transparent bañ kenn sàcc seeni élection mhm. loolu dalay wan ne caaxaan tàmbali na mhm. ndaxte Bougane Gueye Dany mii dafa war a jàkkaarloog Abdou Mbow ne ko Ah, booba tey maa ngi wane ne mbër laa si réew mi di Sénégal mosuma dem élection lu tax mosuma dem élection ndaxte la président bi fi nekkoon di Macky Sall mooy sa patron. Mhm. moom moomee moo doon teg ay ndëgg sërëx yoo xam ne wàllum parrainage wala leneen ak leneen ba mënumaa doon élec ba maanaam ba mënumaa nekk candidat. Mhm. dans les normes Bougane Gueye Dany conviction wala gëm-gëm bi nga xam ne moom lay woote mhm. waru woon ak ki nga xam ne moo di Abdou Mbow. Khalifa Ababacar Sall. borom mottali yéene man damaa foogoon bu mottali yéene ba pare. dafay jubilé. Mhm. takk ay sengooram ñu jaajal ko mu dem jox keneen. kan mooy takk ay sen sengooram. ñu jaajal ko Khalifa Ababacar Sall. Mhm. ndaxte nekkul woon candidat en deux mille mhm. lu tax nekkul woon candidat moo di kees bi nga xam ne moo nekkoon ca Ndakaaru. kees boobee l'ancien maire Mamadou Diop. l'ancien maire Pape Diop. ñoom nee niñ ko utiliser noonu la ko xalifa euh, euh, Ababacar Sall utiliser. Macky Sall pour xamu ne jamono googu Khalifa Ababacar Sall moo ngi si yoonam kir dem. Mhm. Macky Sall boobee da ko tegal li nga xam ne moo di ndëgg sërëx ba demul si li nga xam ne moo di élection 2019. Mhm. mais kookee nga xam ne tey Macky Sall teg na ko ndor na ko ba mën mën mësul bokk élection nan la mën a toogee ak Abdou tey bu Abdou mbaw toogee tey ne leen dañu bëgg ay élection yu libre ak maanaam élection transparent mais Abdou Mbow woote na keroog. Euh, dañuy des si ñoom. Mhm. si Abdou Mbow dañ ko war a xamal ne jotaay bi mu toog comme ña mu toggal amuñuy fulay fayda wax ko ne fii du sa place. Mm-hmm. ñun dinañ ko wax Abdou Mbow fi mu toog place am nekku fa. est-ce que am na choix aussi moom moo mu di Abdou Mbow ndax boo xoolee Macky Sall moo fi génne woon communiqué ba. ca bañ tolloo bañ toogee fële ci assemblée mu mel ni nii lii di bennoo euh, day waaja a dee. Mhm. moom keroog ba ñu defee seen jàkkaarloo bu fële day waaj a dee. nga ne nga ne nga ne amul choix. waaw ndax am na choix ndax Abdou Mbow. mu toog a Khalifa Sall comme ni nga ko waxee. Bougane wayu wayu wayu Mia Guissé bi ak. Amadou ak ak waale la ci ñaan ñu doy waar confuse. lan la lan la Mia wax foofu. damay bëgg jaaxle. béy bi aw ma choix ci ñaar ñu doy waa defe naa loolu la wax de. Ah, léegi nag. abdi yaay sama yaay yedd ma dama lay laaj sama baay xaw ma lan dama lay laaj. genre yooyu xam nga nag euh, euh, Abdou Mbaw mhm. dafa bëgg a jaaxle. amul choix ci ñaar ñu doy waar. ci ñu doy waar waa. ñaar ñu doy waar joojee xam nga kan ak kan la. <laughs> déedéet. Macky Sall ak Amadou Ba. <laughs> dinañ si ñëw jërëjëf. <laughs> kon yow jàpp nga ne à tout moment mën na wàcc foofu. <laughs> dañuy des si abdu waaw bàyyi ñu des Abdou Mbow am mm. choix. Mm. ndaxte du ko seexal ñaar ñu doy waar. waaw di Macky Sall ak Amadou xam nga lu tax. waaw politiquement. Mm-hmm. Abdou mbaw cees ba mu dëkk waxuma Thiès de. quartier ba mu dëkk jàmm gën. Mm-hmm. du fa gañe bureau de du gañe quartier ba jàmm gën. maanaam bu ñu koy xool Thiès Est Thiès Ouest ak yooyu noonu. Mhm. Abdou Mbow mënu koo gañ Abdou Mbow mii xam nga ne bu nekkee ne dañoo dem élection législative mu demee tey si li nga xam ne mooy tey dafa demee si côté Thiès. Mhm. jàppal ne Abdou Mbow moom du doon député. Mhm. liste nationale lay bëgg a ñëw. léegi damay des euh, si Abdou Mbow mii ba tey. Abdou Mbow bu toogee fii naan askan wi dañoo war a am ay élection yu leer. waaw la yenn woon maanaam mooy ñu jël yetu kel fekk ko mu ne làpp koy ndax lan ndaxte Abdou Babou mhm. moom ak i patron ñoo jël Karim Meïssa Wade mhm. wàllum cré yi caaxaan tappale mhm. ne woon liste ba tolloon na lu toll ci mat vingt personnes jëm kaw ñoom ñëpp ñu ñëw rangé wu Karim Meïssa Wade ñu tëj ko yóbbu ko fi nga xam ne moo ca dëkku naare mhm. Karim Meïssa Wade boobu ak tey mënul dugg si li nga xam ne moo di élection c'est tappale rek a taxoon mhm. est-ce que Abdou Mbow jëloon na ay responsabilité ne Macky Sall ki nga xam ne moo di Karim dafa war a bokk mhm. Abdou Mbow patron di Macky Sall moo jël moom ak magi démb bii mu toogal di Khalifa Ababacar Sall nga xam ne dans les normes par principe waru woon toogal ki nga xam ne moo di Abdou Mbow Khalifa Ababacar Sall moo waroon Macky Sall te fépp foo xam ne dañoo dem si àtte ba dañ samay àq ak samay yelleef respecté wuñu ko. et même Khalifa Ababacar sàll bi mu demee ba ñàkk Macky Sall noot takk ko. Mhm. nga xam ne tey ànd na ko ak coalition Yewwi Askan Wi nga xam ne moom l' na bokk rek ndaxte matali yéene bi. Mhm. moom dafa waroon wax du mbaw mi li tax ma ne woon naa bokk rek. damay mhm. mot mottali sama yéene bi rek. xalifa maanaam sa patron mhm. et Abdou Mbow bu toogee tey dañuy wax ci élection ci histoire bu Sénégal waa ñoom la ñu njëkk a dégg ñu jël wàllum tappale wàllum diffamation daan ci nit ci loo xam ne procureur da ci dugal mbiram te yoonam nekku ca mhm. ñoom ñoo ñi ñoo jël Ayib Daffé bi nga xam ne moo di mandataire Ousmane Sonko mhm. fépp foo xam ne dafaa war a dugg pour déposer war a fa jàll mbaa xam nga ne ca conseil constitutionnel bi ñuy déposé li nga xam ne moo di parrainage yi. Mhm. information ba ñu joxe woon si ñi nga xam ne moo di coalition Diomaye dañ ñëwoon kookee bu ñëwee bu mu dugg. Mhm. yow. ayib ba jëloon quittance ba daw làqatu de. ginnaaw bi ñu bi mu bi fayee ba pare. yow gars yi di ko wër. yow Abdou Mbow. Mhm. nga sëy si. Benno Bokk Yaakaar. Abdou daa sëy si. exemple laa lay jox. Ah. ngeen def si koñ bi lu ne weng. <laughs> Abdoulaye Seye si ngeen bëgg keneen takkaat leen <laughs> waaye benn bokk yaakaar ku leen di takk yow jéeg nga boo xam ne bi nga ñëwee tas nga kër gi. Ah. <laughs> toogoo yemaloo sa tànk lu ñu teg jël nga ko <laughs> dépense bu ñu la jox nattee nga ko sosal nga waa kër gi yëpp jaxase nga koñ bi. waaw mu ne daa sëy si waat ku lay takk. ah mais on sait jamais mën na defaraat toogaayam rek su defaree toogaayam war a mën a bokkaat. gumba sax laa lor bu gisulee dégg. Mm. nga xam ne jëfinu benn bokk yaakaar. loolee kan moo leen si war a mën a jël ñu war a toog léegi nag ñu jëlaat si beneen angle. <laughs> dina la dina yow jéeg bi Benno Bokk Yaakaar. jéeg bi si koñ bi. waaye jéeg yi bare nañ de. waaw bay dama dinañu. lu tax lu tax nga mën ngay cité. jéegu euh, Benno bi rek maanaam jéegu Benno Bokk Yaakaar bi taxawu taxawu tamit. jéegu Benno Bokk Yaakaar bi moo sëy si. taxawoo nga fa waaw dinaa si ñëw gëm sa bopp nga dinaa si ñëw. Euh, Pape Djibril Anta Babacar fépp foo mës a gis jeeg bu bon. Mhm. ca koñ ba. waaw di gis ne am na ay ñetti nit yoo xam ne am na ñetti xarit yoo xam ne. waaw ñoo doon ñëw si kër gi. Mhm. naan ko sa jëkkër ji. waaw te ñii li ñu def baax na wala baaxul. Mhm. seet looloon ok jeeg buy tasum kër gu ne gis nga ne am na ñetti xarit yoo xam ne ñoo ko doon jàmbal dëgg la fi ñu toog dañoo war a toog dinaa ñëw si ñoom euh, euh. mais jéeg bi douze ans dafa sëy si si kër gi waaw jéeg bi tas na muy ab Abdou Mbow jéeg bi mooy Benno Bokk Yaakaar d'accord en en gros quoi. Benno Bokk Yaakaar. d'accord. toog mhm. fu la neex ngay dem. waay doo wax dëgg. <laughs> xaalis bi ñu la jox. nga war ko def ci dépense nattee nga ko. waay jaxase nga kër gi ba kenn xamatul kan mooy wax ak kenn. Mhm. sëriñ boo xam dem nga fa. Mhm. koñ bi ñëpp xam ne ñi nga mel. sa jëkkër fase la tes ne ne waa koñ bi yéen ñëpp yéen a ma conseillé ne ma sama ji sama kii mhm. bu ma si yàggeeg moom du ma si am njaboot bu baax mhm. yow nga ne da ngaa bëgg sëy si waat si koñ boobee ku lay takk tey metti loolu de muy waa benn Bokk Yaakaar fi ñu tool nii <laughs> léegi nag fépp foo mës a gis jeeg bu bon amoon nañ ñetti xarit waaw xarit yooyu ñoo duñ jëlee fee wax di la andil xam nga ndax yéen a may dégg. ñu ngi lay dégg bu baax a baax. jeeg bi waaw am na si benn xaritam boo xam ne moo ko doon wax nañuy dem si sëriñ bi waaye jeeg bi. Mhm. amoon na si koo xam ne mooy doon nettalikat bi mooy xaritoog waa koñ bi. Mhm. lu mu demee jëlee si waa koñ bi wala si kër gi andil ko. andil ko. kër famille la. Mhm. ñii kër famille la. xam nga li tax ma jël exemple boobu. Macky sàll dafa nekk ci nguuram nekk ab réew mu ne leen mhm. je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression mhm. mais Macky Sall pour mu réduire opposition boobee dafa ñëw créer leen dafa créer opposition ci biir opposition xam nga fi ñu toll nii leen nga gis ci nguur gi nga xam ne moom moo nekk nii nii nii nii nii nii mhm. jamono gii xam nga lan nga gis mooy nguur goo xam ne ñii ñoo nekk pouvoir nga xam ne ñii ñoo nekk opposition. Mhm. mais Macky Sall dafa créé woon opposition ci biir opposition. ndaxte dafa jël kenn koo xam ne moo di Ousmane Sonko xam ne ne kookee da koy sanal. Mhm. mu xam ne am na ñoo xam ne politiquement dootuñu dundati. Mhm. Macky Sall ne leen kaay leen comme waa ji dafa bari doole. comme waa ji nit yi jox nañ ko bàyyi nañ ko comme waa ji saa su ne bu ma àndee si débat d'idée war na maa mën a daaneel. comme waa ji am na mbooloo léegi kaay leen damay am sama opposition boo xam ne day dend ak Ousmane Sonko waaye jàppal ne ñooñee du ñu dal si man au contraire ñu jëlee si Ousmane Sonko di ko yóbbul waaye ñoom ñooñee ñooy opposé li nga xam ne moo di Ousmane Sonko. Mm-hmm. mooy jeeg ba ay xaritam xarit yooyu nag mooy ñii. la Macky Sall moom ak benn bokk yaakaar doon utiliser. Mhm. tey day doon dëgg day leer ñu xam ne Ousmane sonk képp ku mu doon jëflanteel ci wàllum politik mhm. benn bëggoo ko ñaar tey dañuy confirmer ne Macky Sall ay pion la amoon. Mhm. lii da koy firndeel. Macky bi mu nekk au pouvoir. Hmm. dafa am ñu nekk ci pouvoir bi am ñu toog waaye Macky bi mu nekk ci pouvoir opposition bi am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir opposition maanaam euh, ci pouvoir bi. Euh, benn par benn lu ñu jël ñoom ñëpp. Mhm, mhm. ñoom ñëpp ñoom ñuy toog. waaw Bougane Gueye Dany Pape Djibril na Thierno xalifa Khalifa Ababacar Sall Anta Babacar Ngom. Mhm. tànnal nag ci ku la neex ma wax la lan moo nekkoon diggante digganteem ak Macky Sall. d'accord dañuy euh, dañ koy dooree ci ki nga xamante ne ni bii mooy Anta Babacar Ngom. Anta Babacar Ngom nga jël ndax dégg naa bokkoon na ci. Euh, kay yow kuppal rek. Anta Babacar mi mu ngi noonu waa léegi ñëwal ma bañ ma bañ laa jox ci ci ay ay mbir. Anta Babacar Ngom. waay mooy doomu kan. Babacar Ngom Babacar bu Sedima. Mhm. Babacar Ngom bu Sedima. Mhm. moo ñëw fekk ab dëkkum lëmb ca Ndingler. ñu signeel ko fa ay kayit yoo xam ne waa nekk leer yooyu ñoom ñëpp si lañ doon bayee. Mhm. ñu nangu ko jaay leen doole. Mhm. lu tax lool mooy ni mu meloon ak li nga xam ne moo di le président de la république bi fi nekkoon Macky Sall. et même Anta Babacar Ngom. waaw yi nga xam ne moo fi mu mujjoon am. 2019 moom moom moomee. waaw bokkoon na si ñi nga xam ne ñoo doon jàppale li nga xam ne moo di Macky Sall. ci campagne bi waaw. Anta xamee woo ko basum politique. Mhm. Anta. ñoo ngi ko xam bi élection di waaj a ñëw. Mhm. Anta jàll na pare parrainage fan la ko Anta jële mhm. Anta Macky da ko ngemboon ngir mu ñëw. si mhm. ñi nga xam ne dañoo demoon élection. si ñi doon woowee seen bopp opposition bi. jàppal ne Anta pion bu Macky Sall la woon kuppal keneen. ci biir. si ñu toog. ñu ñëw ci borom euh, coalition gëm sa bopp Bougane. gëm sa bopp. Euh, Bougane Gueye Dany boo xoolee ni ma doon positionné da nga naan opposant la. Mhm. mais macha allah boo xoolee taxawaayam ak ni mu doon defee da doon joué double jeu Bougane day publicité te kaboy mhm. askan wi Sénégal ñëpp xam nañ ne. Mhm. lu tax ba tey ñoo gëm Bougane Gueye Dany xamuñu fan lay taxaw. Mhm. ndaxte tey ñu ne ko ci opposition bi nga far. Mhm. suba ñu ne ko Macky Sall ngay liggéeyal. Mhm. loolu rek benn point la. beneen bi mooy. Bougane Gueye Dany euh, bi mu fii nekk ci nguurum Macky Sall. privilège yi nga xam ne moom la amoon. ndax mën nga yor tele ak ni nga xam ne noonu la mel. nga war a fay impôt. fisc yi rek fayoo. te ñaata entreprise de communication nga yoroon. et le même Bougane Gueye Dany boobee la ñuy dem élection. Mhm. ñuy xaar mu tànn ngir ñu dem ci ku jege. Mhm. mu ne tànnul àdduna dafa am tànn ak bañ a tànn. mais la fekk nga bañ a tànn sax tànn na. Mhm. kon bokk na ci ñi nga xam ne nii moom moomee da doon liggéey ki nga xam ne moo di Macky Sall. ndaxte bi ñu waree tànn tànn. mooy opposition ci biir opposition bi ñi nga xam ne ñoo doon nekk les pions de Macky Sall Bougane Gueye Dany moomee ci la bokk. tànnal mm. keneen. waaw dañuy euh, ñu daane la daanoo ci kële nu mu tudd. Pape euh, Djibril Pape Djibril Fall. Mm. Euh, lu tax le cas de Pape Djibril. est que duñ jël sax xalifa balaa balaa Pape Djibril. bu la neexee waa ñu jël xalifa ba pare Pape Djibril mën naa xaar. xalifa Ababacar Sall. Mhm. Macky da ko joué le rôle. waaw. rôle dëgg-dëgg yi mu ko jouéloo du tey nag lañ ko mën a xam xam nga yan rôle la ko jouéloo mhm. benn utiliser na ko mu nekk ci coalition Yewwi Askan Wi mhm. beneen bi ñu jox ko ca confiance confiance dañ ca jox mhm. euh, liste yi nga xam ne amoon na fi jafe-jafe ci élection législative yi dañ ko bàyyi xel mu di Déthié Fall bi ñu xam ne mooy la plan de Déthié Fall bi ñu tegoon intercoalition boobu Khalifa Ababacar Sall Ah, demoon na ba listu Ndakaaru les sept ñi nga xam ne ñoom ñooñee ñoo war a représenter mhm. la coalition yeewi askan wi euh, yeewi askan wi wàllu si mhm. Ndakaaru liste boobu daa amoon jafe-jafe ndax tànn nit fan lay teg nit kii fan laa koy teg mhm. xaw ma ndax ñoo ngi koy fàttaliku et que Khalifa Ababacar Sall moom moomee xamoon na wel li nga xam ne moom la doon def et le même Khalifa Ababacar Sall moo ñëw ngir bëggoon may Abdoulaye Diouf Sarr maire Ndakaaru gii. Mhm. heure tànn jot xam nga ku mu bëggoon tànn. Mhm. Soham Wardini. waaw lu tax woon mu bëgg a tànn Soham Wardini Khalifa Abu kan moo yoroon maire Ndakaaru xalifa Ababacar Sall Khalifa ko daanee lañ ko jox ki nga xam ne moo di ni Wardini. Mhm. Soham Wardini ñëpp xam ne tey lu tax ñu teg ko fa. yow ñuy demaat élection ndakaaru googu nga am sa poulain boo xam ne dafa taxaw war koo jël xalifa jëlul ay responsabilités tànnul il a fallu ko ba Ousmane Sonko wañ li nga xam ne moo di loxoom. ci mhm. biir coalition Yewwi Askan Wi. Mhm. ñan ñoo njëkk a andi wàllum sabotage. ci biir coalition. Yewwi Askan Wi. ki njëkk indi sabotage. ci biir taxaw dafee bokk. xam nga nuñ def euh, gisoon nañ fi. Euh, xam nga nuñ def gis fi xalifa Khalifa égal Barth Barth ay mhm. waaw. doom ja baay ja baay jaay doom ja. dañoo dem ca mairie Ndakaaru mhm. ñu xam ne saa su ne dañoo waral euh, maanaam respecter li nga xam ne mhm. moo di parité góor tegu jigéen tegu te xam nañ ko bu baax mhm. defuñu ca ndaxte dañoo jël Barthélémy Dias ak ki nga xam ne moo di Abbas Fall xam nga lu ñu def euh, bi nga xam ne seeni mbir moo ngi dox ak Macky Sall dëgg-dëgg Macky Sall di leen utiliser le numéro deux bu Pastef te Ndakaaru wala kii nekk la numéro un bu Pastef mhm. dañ koo jël jëlee ko fa mhm. Abbas Sall la ñu def ay élection jëlee ko fa maanaam Macky Sall tàmbale leen utiliser et le même Macky Sall boobee mhm. pour mu tas coalition Yewwi Askan Wi wala pour mu déstabiliser leen ci Khalifa Ababacar Sall la ko la bokk ndaxte ñoom dañ ne woon duñu ñu wuy ji wala du ñu mës a dem dialogue lu ñu wax la duñu mësa dem dialogue du ñu nangu ku leen chantage waaye Khalifa Ababacar Sall moom moomee moo dem. moo demoon ca dialogue ba weer. moom moomee moo dem ca dialogue ba. Mhm. moom moomee aussi moo ne l' na bokk rek te xam na ne du gagné. Mhm. <laughs> et même Khalifa Ababacar Sall Khalifa ay Bart Bart ay Khalifa. waaw Ousmane Sonko jour bi nga xam ne nii tey mbiram wàllum dossier am. Mhm. Euh, ca justice ñoo ko war a daaneel. Macky Sall dafa utiliser ki nga xam ne moo di booyu xalifa di Barthélémy Dias. kon jàppal moom moom moom si la bokk. Mm. le cas de Pape euh, Djibril Fall. moom nañ koy tëjee. moom lañu koy tëjee waaw. Euh, li tax tey mënuñu koo génne ne dafa bokkoon si pion Macky Sall. Mm-hmm. dañoo amoon benn Ousmane Sonko. Mm-hmm. mais comme Ousmane Sonko dayoo bi nga xam ne am na ko si politique ni nga xam ne nit yi ñoo ngi koy bàyyi xel ak critères yi nga xam ne moo nekkoon si moom. Mm-hmm. foogoon am beneen Ousmane Sonko boo xam ne moom moom dina damm di maanaam. li nga xam ne Ousmane Sonko moom la yor ci électorat dina ko wàññi. Mhm. looloo taxoon ñu travail benn Pape Djibril Fall mu xëy un bon jour jóg ne moom moomee day bokk ci ñi yor réew mi. xam nga lu mhm. tax. dafa am ay critères yu mu yoroon moo di koo xam ne dafa mën a wax. koo xam ne dafa engagé wu ci société bi mais kenn la koo xam ne ndaw ñi dañ koo joxoon bopp mhm. mais léegi politiquement. Euh, euh, pour Ousmane Sonko mbooloo boobee mu yor foog ñu tas ci tuuti. Mhm. foog ñu jël koo xam ne méngoog naa Ousmane Sonko am na dayoo Ousmane Sonko bi am na profil bi Ousmane Sonko bi am. pour ñu bàyyi bu ñu demee élection mbooloo boobu yëpp bañ a topp Ousmane Sonko. Mhm. looloo taxoon ñu créé ñu Pape Djibril Fall mu doon li nga xam ne moo di politicien waaye dugg ci làngum politique bi. Mhm. looloo tax bi ñu demee ci ay élection nga gis ne am na ci ndaw yoo xam ne. votel nañ Pape Djibril Fall élection législative mhm. voté lu ko li nga xam ne moo di élection présidentielle xam nga lu mhm, tax mhm. moo di am na doole goo xam ne damm nañ mooy ba ñu dem ca élection législative dañ ne woon yeeyu askan wi waruñu ko bay mu am majorité ñu ko bay mu am doole foog ñu jël kenn ku méngoog Ousmane Sonko si dayoo koo xam ne xale yi jox nañ ko nopp looloo tax boo demee ca élection législative si pourcentage Pape Djibril Fall li mu am ca élection amu ko ca élection présidentielle mooy xale yi nga xam ne joxoon nañ bopp Ousmane Sonko am na ci électorat wu Ousmane bi léegi bi mu doon député ak position bi nga xam ne moom la ci jël. Mhm. ñu bëri ñëpp nag xam nañ ne us maanaam Pape Djibril Fall benn objectif la woon mooy nañu am kenn koo xam ne méngoog naa Ousmane Sonko mën na jël ab néew ci électorat bi mhm. moo tax ñi ko voté élection législative bi bëri na ñoo xam ne voté lu ñu ko élection présidentielle bi mhm. ndaxte identifié nañ ko xam nañ la kenn la koo xam ne l'opposition maanaam opposant la ci biir opposition bi te ñëpp benn objectif la amoon mooy Ousmane Sonko mhm. dayoo bi nga xam ne moom la yoroon ñu wàññi ko looloo tax ma wax la ne ñi nga gis ñu nekk ci biir coalition bi yëpp benn objectif rek la ñu amoon mooy damm doole Ousmane Sonko. Mhm. dañoo àndoon ànd ba nag daa fësuloon. tey boo leen gisee ñu toog jàppal ne dañoo war a toog. Mhm. rawatina ñoom ñëpp kenn moo leen di commandé. te mhm. seen patron moo ngi tudd Macky Sall. waaye ñoom ñooñu. Euh, ñu gis sax euh, laaj gi nga xam ne moom la ñëpp di laaj jamono ji nee na nee Ba ndax euh, actionnaire la.